pour que baatu société civile ak lu muy représenter ak lu muy défendre bu egg assemblée nationale parce que dama gëm ne nag assemblée nationale politiciens yi pur et rek ñoom moomuñu ko moom moo indi clivage bi fa am moom moo indi xeex bi fa am ba sénégalais yi xool nee ne assemblée nationale moo gën a assemblée nationale yi nga xam ne am nañ fi ba léegi douzième bii ñu bokkoon loolu lañ doon wax mhm. mais yi bii la ñu gën a donc te pourtant boo